ah sëy bëri léegi di tas de yaakaar naa ne xaalis la ndax boo demee bay sëy bëgg sa jëkkër te yàlla tax bu fekkee jiitaloo xaalis di nga toog mais xale yi tey dañoo judd rek juddoo xaalis tey boo dee xale bëgg a sëva te liggéeyoo nga yaakaar ko ci góor góor googu bu ko yorulee boo gisee keneen koo xamante ne daje nga ak moom mu jox la loo xamante ne mën nga ci jënd sëva da ngay bàyyi kooku dem si keneen. am naa valentine bu baax a ñaar. yow koy partagé dama koy partagé comme niñ koy partagé rek. Ah. waaw. bu baax a baax. dama leen bëgg yemale leen li ma am jokki ma jokkee. Ah. waaw Saint-Valentin moom li ma bëgg bu baax a baax. Ah. te damaa bëgg damaa bëgg nag ñii di ko def comme suñu maam yi niñ ko doo defee xam nga ñoon lakkat yi suñu maam li ñu doon def bu amee ñett ba ñeent sax leen yemale waaw man loolu laa waaw suñu maam yi laa topp daal parce que dama yeroo ci famille boo xam ne famille yu màgget waaw jógee Guinée saa ñëw ba fii Sénégal takk fi sama ñaari jabar yemale leen ñëpp waaw lu ma am ñu bokk ko Saint-Valentin amul seen valentin li ma am je sais pas parce que seen valentin moo tax may bëgg sama jabar ni ma leen bëggee par rapport ak seen valentin sax noonu laa leen bëggee waaw. ah xale yi seen bëgg-bëgg a bari waaye bu jëkkoon doom. day xool ndeyam na mu daan sëy boo xoolee sa yaay ji la jur na mu daan sëy yéen nag ma fekk si waañ wi bu ma neexoon ma dem tëdd nelaw waaye du ma ko def na may daan doole rek ma la yàlla def li mu gën ma bëgg xale ba seen bëgg a bëgg a bari li ñuy bëgg li ñuy laaj moo bari soo ko yorulee rek day metti waaw euh, man moom sama soxna moom tout le temps moom maa ngi maa ngi dund moom Saint-Valentin quoi. tout le temps waaw parce que dafa nekk loo xam ne mais sa intérêt parce que nit boo nekkee moom. Mm-hmm. mu nekk sa soxna day jaadu chaque jour. ngeen di dund lu neex quoi parce que mooy tax bu ëllëgee après mu xam yooyu kan quoi. boo ko juree da ko war a jàngal lu bëri quoi surtout mais sëy parce que nit bu fekkente ne mais da ko jàngal sëy amaana boo ko yóbbu si kër mais dina comprendre lu bëri parce que euh, doom dañ ne mais day copier si yaay ji quoi du dëgg ñun xale yi lu suñu problème lu bëri chaque jour dama koy wax Sénégal yi seen problème mooy sëy sëy na ku si nekk mais da nga responsable bu mag a mag ma surtout mais ñi nga xam ne ne dañuy bàyyi ko si ay kër dem si yeneen kër parce que ndekk moom lu mu gisul nak rek bu demee fa loolu lay copier quoi waaw parents am na ci responsable de parents am na ci responsable bu rëy rëy rëy que waaw bu rëy en même temps tamit euh, am na ñu ñuy yar sa gaa mais xam nga nit moom tout le temps rek mais day jaadu après nga koy fàttali quoi mais loolu mais loolu erreur la xam nga lu tax la erreur la xam nga jabar balaa nga koy tàkk da xam lu tuuti ci moom jabaru si balaa ngay xëy da ngay xam góor ki tuuti ci moom mais imaginel yow tey tase ak yow ci boîte de nuit gis nga li ngay sol sañse rafet bëgg la tey ah gérer la deux jours trois jours yor sama deux cent mille ma dem bokk ci sa famille ne la waa kii damaa bëgg a jël soxna si ñu ne waaw sa jabar yaa ko moom man balaa mbalee bay takk samay jabar sama aawa bi dëkk naa ak moom lu ma trois ans ñoo nekkoon ci benn kër xam na lu ndaw ci man ma xam lu ndaw ci moom sama ñaareel li dëkk nañ def nañ lu mët cinq ans ñoo nekk ci benn quartier ma xam lu naw ci moom xam naa de moom xam na li ma bañ man xam na la mu bañ mais léegi booy yi erreur divorce yi ngay gis léegi par erreur la par erreur la du ñu xamante yow doo xam góor ki jikkoom nu mu mel mariage intérêt parfois mariage intérêt mais erreur la ci nekk erreur la ci nekk parfois seen waajur yi ñooy dugal ci seen doom ci erreur. Euh, waaw am na valanta <laughs> depuis un an. waaw may noos ko toone moom waaw ça va neex na kay ah tane bu pare bu yem rek <laughs> ah, bon ouais ouais quelque chose de romantique daal comme que Saint-Valentin c'est tous les jours quand même waaw mais dañ ko def jour bi spécialement pour euh, ah divorce yi bëri na quand même ni mariage yu bëriwee noonu la divorce yi bëriwee mais bon je me dis ni manque de communication la waaw manque de communication en plus manque d'honnêteté aussi ci la bokk ci ñaari côté yëpp. Mhm. parfois ku jigéen ki nëbb boppam waaw. voilà donc c'est assez fréquent depuis depuis depuis pas mal de temps donc surtout ñun ñi nga xam ne ñun ñooy les les les les les jeunes couples et tout. mais bon studio fait que comme autant nit ñi dañ leen daan encadré seen i ay parents ñu leen daan encadré yi tu donc di waxtaan ak ñoom di leen xamal lu bari ci àddina donc muy jëkkër ji ak jabar ji la plupart seeni i goro dañ leen daan def doom yi ñu jural seen bopp du coup lépp lu ñuy xoolee seen doom bu góor wala lépp lu ñuy xoole seen doom bu jigéen moom la ñuy seen goro donc à chaque fois donc bunge boobu noonu dafay am solo donc dafay doon gën a tax divorce yi daanul daanul bëri léegi nag par rapport ak société bi muy évoluer donc ñu ci bëri dañuy am jabar wala ñuy am jëkkër dem dëkk seen dem dëkk ñoom à côté dans un appartement et tout donc euh, du ñu am ñu bëri ku ñuy waxtaanal ñu leen mën a xamal àddina la plupart des personnes yi nga xam ne ñoom la ñuy dégganteel seen ay morom lañ donc du ñu xam lu bëri ci àddina donc duñu leen mën a assister sur le plan sociale sur le plan psychologique di waxtaan ak ñoom pour mën leen a bunge ci ni ñu war mën a nekkee ak seen borom kër ah ma leen di conseillé ne daal fi mu toll ni rang bi dafa xat dafa seere pour nga am sëy bu baax yombut soo demee ba am bu baax téye ko fukki loxo ak juróom ay sëb ak ay yooyu noonu taxawul fenn xam nga lu taxaw nga sëy rek te yàlla tax ndax kuy dem bay sëy rek da ngaa bëgg waaye da ngay dem da ngay am gis xale yoo xam ne dañuy sëy ba pare dem ba ci digg bi bugg cee rocceeku ma leen di ñaan daal voilà ma leen di ñaan daal nañ boole am ak ñàkk bu ñu boolee am ak ñàkk rek duñu sonn benn sëy neexul ñëpp la côté góor yi côté jigéen ñëpp la ndax tey damay damay damay xam nga tey jii man taabul laay jaay tey su fekkente ne aw ma lu may jëndee cheveux naturel ma gis sama morom bu mu jënd ko man dinaa ne kii kat li mu sol dinaa ci sol boo liggéeyulee nooy def il fallait que nga wuti ko ni nga koy wutee du neex bu fekke yaa ngi liggéey di nga ko am boo liggéeyul ni nga koy amee du neex moo tax ñun jigéen ñi dañu war a xoolaat suñu bopp ñu am suñu ngëm-ngëm xam ne lépp yàlla la loo am rek doyloo ko yàlla mooy may mooy xañe lu mu la may jëlal lu mu la xañ nga jël. li koy dindi moom mooy euh, waxtaan ah. li koy dindi moom mooy waxtaan ak nit ñi waa surtout tous les plans ah, ki nga xam ne moom mooy sa jabar déjà xarit nga koy njëkk a jàppee rakk nga koy njëkk a jàppee donc sa lépp nga koy jàppee donc lépp looy def ci moom da nga koy xool sa bopp donc boo ko xoolee si sa bopp rek lu bëri xamaa ne mën nga ko éviter. mais je ma dikk que ni lépp at lu mënti am rek ñuy communiquer waaw. waaw góor ñu ngi yor jabar parce que lu ci bëri sax. en même temps mais problème mu bi la quoi parce que ñun sénégalais yi mais mais dañuy aajo après mais ñun daanaka du ñuy jàppale quoi ndaw yi parce que ndekki bu ne mais da nga koy mais da koy jàppale après mais si lu nekk ak fànn bu mënti nekk nag parce que ñun ñëpp ñoo bokk réew mi ku si nekk si li nga nekk rek bu ñu si jàppalee rek xëy na léegi nag après mais boo koy dund si liggéey yàlla dina def après lu ñu si bëgg mais duñ ko am bu fekkente ne mais da ngay dund benn affaire amoo si ndimbal amoo si njàppale kooku mais saa mais sa xol ak ak sa gis-gis maanaam bu amee day day gaaw a loolu mooy problème bi. ma bëgg nag képp jigéen muy sama doom sama doomi marom mu ñëw te sëy te yàlla tax ah maaman yi maaman yi de kenn mënu kaa bañ fu leen ko fekk fu leen koy bàyyi waaw du jeex ñiy yàq ak defar dafa bari waaye yal yàlla dooli sutura rek